UCAB FM. li gën a fës ci yi. Papa Saer Mbaye. bis. simil jàpp Papa Alé bi nga xam ne kon na yéenekaay yu bëri daanaka moom la ñuy nettali kenn ku ci nekk del si di ca joxe sa xalaata sa gis-gis ci taxawaay bi nga xam ne kon moom la ñu ca taxawe yéenekaay xëy di ne mbootaay yi lëkkale taskatu xibaar yi kay ñi ngi bu ne la ñu bëgg mooy seen naataangoo li di Papa Alé Niang ñu teggi ko loxo sunu naataangoo xam la rek ne luñ ci mën di nemmeeku wàllu ko taxawaay nga xam ne kon moo jëm ci wàll wi moom nag ña ngay fàttali kàddu yi nga xam ne kon njiitu réew président Macky Sall waxoon na ko fii mu doon moom fekk mi ngi nekk njiitu réew amul amul benn taskatu xibaar boo xam ne kon danga nga dugg kaso yéenekaay bi xëy di xamal rek ne njiitu réew mi moom moo fi waxoon lii loole baa jëfi tayam weddiwu ko su naataango yi xëy di xamal rek ne luñ ci mën di nemmeeku moom président Macky Sall nag ña ngi koy génnal ay kàddu yu jëm ci taskatu xibaar yi luñ ci mën di nemmeeku sunu naataango yi ñu ngi xamal rek ne kàddu yi nga xam ne kon moom la waxoon ak li mu jëfe waroon na lool yéenekaay yu bari kenn ku ci ne ak nanga nga ca fësale sa jàppale ci kii di taskatu xibaar bi nga xam ne kon moom dañu yëkkati ay kàddu tuuma jëme ci kawam mu doon doon ay xibaar yoo xam ne kon da koo génne te waru koon a génne ndax dafa aju ci wàllu ko larme bi te nag mën naa indi ay jafe-jafe waaye tam rawale goo xam ne kon da ko rawale ay document administratif ak militaire yoo xam ne waru ko woon a génne yéeni bi xëy di xam la rek ne la nga xam ne kon moom lañ cey defaloo mooy nag bi mooy bu guléet boo xam ne kon moom kii nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall yëkkati na ci ay mu leer ñëpp ni lii moom moo ko mu deltuwaat ca gannaaw Vox Populi yéen kaay ak Sud Quotidien kenn ku président Macky Sall jël na lu toll ci fukk ak benn ci ay dogal yoo xam ne kon lam ci jublu mooy wàllu ko njëg li nga xam ne kon dañu koy soxla askan di ko yittewoo yéen kaay bi xëy na luñ ci mën di neme doon nanu ko amal ngir waxtaane wàllu ko njënd mi nga xam ne kon dafa seer lool doon rek jumtuwaay moo xam ceeb bi sukkar ak lépp lu ajoon ci luñ mel yéen di xam le ne njëg yi nga xam ne kon gouvernement bi tëral lanu ko samedi bi ci guddi lanu ko tàmbali di jëfe wàññi njëg yi yéen kaay bi di xam le ne jamono ji nga xam ne kon moom lañ ci bëri na ci ay boutiquiers ne kon ñoom fi mu toll nii danañ leen dañuy ñaan rek ñu am na ci ay jaaykat yoo xam ne kon lànk la nu def nee nañu mbir moom duñu ko jëfe ci nii duñu ko jëfe ci nee ba tey yéen kaay bi xëy di xamal rek ne ñenn ñi nee nañ la tax duñu ko jëfe mooy la nga xam ne ko moom la ñu jotoon na jënd jeexalagunu ko ba tey ñu koy jeexale rek duñu mën a gën a wàññi ndax naka duñu jaay di perte yéen kaay bi xëy di xamal ne dogal bi gouvernement bi jël kay fi mu toll nii ay jafe-jafe dëgg lañ ca jota nemmeeku ba tey ñenn ñi ñoom la nga yëkk seen ay kàddu ne nag dogal bi bu ñu ko yamal rek ci ñi nga xam ne a kon moo di borom boutique bañ a bàyyi nopp tëx ba la joxe yéen kaay bi di xam la rek ne lu jëm ci wàllu ko dogal bi nga xam ne kon moom la joxe woon ngir rek wàññi njëg yi ci ndakaaru moom ni ko ci gaaw ci guddi gi la nu tàmbali lu nu mel waaye nag boo koy xool ndakaaru li nga xam ne kon moom moo di marché castor ba ca yeneen marché yoo xam jot nga xam ne kon ñoom ñoo di jëndkat ak jaaykat ya fa ñoom nag fi mu toll nii daanaka jafe-jafe ña ngi ko cay dund tribune yéen kaay ba tey ma nga ca commerçant nga xam ne ñoom nag lu jëm ci wàllu ko jëfee ndigal li ci wàllu ko li nga xam ne kon moo di njëg yees yi nga xam ne moom lañ leen jox ngir ñu mën koo jaay yéen kaay bi moo xëy di xam le re am na ci nag lenn ci ay produits yoo xam ne kon loolee boole wuñu ko ca yéen kaay bi xëy di xam le ne nag loolee luñ ci mën di nemmeeku ñii di jaaykat yi ñoom dañu wut ay pexe ndax bu ñu wàññee fii taf nanu ko feneen fa ngir rek bañ a perte ci li seenu liggéey ba tey yéenekaay bi di xamle ne askan wi ñoom ak jaaxle dëggantaan la ñu am ci li nga xam ne kon moom moo di eh, wàññi ko njëg yooyu leen ndax nag bëgg nañoo gis wàññi gi waaye nag jafe na ci ñoom wàllum politique bi yéenekaay yu bëri del si ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàll ka eh, élection présidentielle ñu ngi koy waajal atum 2024 yéenekaay bi xëy di xamal ne fi mu toll ni kay troisième mandat bu njiitu réew président Macky Sall la ñuy waxtaane yéenekaay bi

njort a ñaaw eh, xel moo xam kon jamono ji nag am nañ ci ak jiixi jaaxa mu doon eh, ci wàll ka ñetteelu mandat ndax du ko bëgg waaw wala de l'observateur kay am xel mu jaxasoo dëggantaan lan ci bu fekkente ni xel jaxasoo ca waa grand parti ñoom gindeeku nañu xam nañu kan moo nekk seen mbër ci wàllu ko jogante présidentielle 2024 Malick Gakou may njiit ma moom naka lanu investir yéen bi xëy di xamal ne ndaje

kon ñoom ñoo fay yeewoo daanaka nag ñoom li nga xam ne kon moom moo di or ba nga xam ne kon moom lañ jële ci seen dëkkuwaay yooyu daf leen rom mu leen di xeeñ ci seen bakkan rek waaye duñ cee jëfandikoo dara yéeni kaay ba xëy di wax seen ay jafe-jafe ne nag ndox ma doyul courant ba doyul la ñuy dund daanaka nag jafe-jafe yu ca la ñu nekk booba ak léegi yéeni kaay bi xëy def ci ak jaaxle bés bi le jour ba tey ak libération ñoom la leen ñor bokk na ca nag ci wàllum koppar ay faux billets yoo xam kon dañu ko jàppati yéeni kaay bi xëy di xamal lu jege milliard maanaam eh, juróom-ñeenti téeméer ak juróomi million yoo xam ne kon jot nañu ko jàpp waa douane ñoom ñoo ko teg loxo ci juróom benn doomi aadama yoo xam ne kon eh, ca diggante Kees ak Ndakaaru lañ leen jàppe libération yéen i kaay yi ñu koy nettali ba tey yéen i kaay bi xëy di xamal ne loolu nag ak jaaxle dëggantaan lañ ci jote nemmeeku las ak stade yéen i kaay ñoom nag eh, ña nga li nga xam ne kon moo di coupe du monde bu koy waajal niki dimanche bi lañ ko fas yéene tàmbali yéen i kaay bi xëy di xamal ne fukk ak juróom benn yi nga xam ne Aliou Cissé woolu na leen ñoom nag jamono ji egg nañ ca Doha ca Qatar yéenikaay bi xëy di xamal de ñoom nag vol spécial lañ leen wutal ngir rek ñu a dem foofule sunu naataangoo yi xëy di wa damal am yenn ci ay examen yoo xam ne a xoolaat lu jëm ci wàllu ko yaram ñii di gaynde yi tey jii ci tàkkusaan si lañu fas yéene amal nag seen tàggatu bu njëkk ci fi nga xam ne kon moom moo di rek ca Al Dubai handball bu arena ba nga xam ne kon moo nekk ca Doha yéenikaay yéenekaay bi di xam la ne ñun sunu gaynde yi ñoo ngay waajal lu jëm ci wàllu li nga xam ba tey ci procès bi nga xam leen rek ne àtte boo xam ne kon ba tey képp koo xam ne rek da ngaa yàkkamtu bay bu nga xaar boo saagatu da nga xaddi ndax nag day mbir mi du gaaw loolu yéenekaay bi di xam le ne toll nii day jafe-jafe dëgg dëggantaan nag ña ngi ko ciy dund ci wàllu wu mel yéen kaay bi di eMédia point sn ba tey ma nga ca jamono ji li nga xam ne kon moo a xëy di ko nettali jeexale ko Dakaractu point com mi xëy sampub laaj di xam leen Serigne Mbacke Mara ci Touba xamee nañu ko ci lool ci ay kàddu yoo xam ne kon da ci faral di yëkkati waaye nag yéenekaay bi xëy samp laaj ne sëñ Mbàkke Mara moom fi mu toll nii ndax dafa ji Mimi Touré waaw wala déet baa ngi fésal seen ay nataal boo xam ne kon ñoom ñaar nga ca bokk taxaw yéenekaay bi xëy di xamal ne luñ ci li ko ci jaaxal mooy nag sëriñ Mbàkke Mara mi nga xam ne kon ànd na ak kii di Mimi Touré ndax dafa dem wuyu ko ànd ak moom ci politique waaw wala déet yéenekaay bi xëy samp laaj ba mbokk yi yéenekaay yaa ngoog dig daje lëkk UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye